ab maire day dal ab maire doo jannate ab maire doo wax lu bon ab maire saa su ne da ngay saafonteex sa njaboot di leen digal lu baax di leen tere lu bon moo tax ñun am na loo xam ne duñ ko tontu waaye sama waa ji def naa jànnatee daf ko dugg léegi tàyyi na di ma saaga tàyyi na di ma sosal tàyyi na di ma xas mu ngi may attaqué ci zone boo xam ne nag attention. di fudu parce que bu ñu woon ko dugg doo wax moom waaye comme politique la rek ñëppay parandoo kay de ñëppay tudd ñëppay wax leen neex waaye nag mi ngi dugg si domaine boo xam ni wax dëgg foofu moom fu duggee dina tuut ndax dégg naa ko mu naan man xaw ma nu ñuy gérer commune waaye moom. incha allah ay wax yoo xam ne la dina ko rëcc ndax moom xamul boobu ba léegi fu ma jaar ba egg si ma egg si man muy keneen képp xam ne candidat la na ngeen fexe ba déglu lu muy wax parce que moom dafa am ñaari mbir yoo xam ne faw mu wax benn bi mooy bilan bilan nag du ay babage babage du mu wax ñu nag asama gars ak nit ñu baax ñi ma àndal ma siy jiital dama fàttu sax da ngeen waroon may ma gërëm d'abord ki nga xam ni mooy li ma wax keroog gars yi da ngeen déglu gars yi déglu leen gars yi gars yi arrêté leen li nga dafa am solo gërëm d'abord ki nga xam ni ba ma doonul dara wala ba ma nekk lu rëy ci biir moo ma jox dara def ma dara muy président Macky Sall moo koy gërëm di ko sant li si des li nga xam ni vraiment loolu moo am solo mooy le programme bi nga xam ni équipe bii nekk sama ginnaaw ngeen gis si ay ràññi si ay nit baax mu am solo solo ngeen déglu ko ngeen xool ëllëg fi ngeen jëmale programme boobu incha allah dina leen ko jëppal si fan yu néew dina leen invité ci surtout yéen xale yi dina leen ngeen ñëw déglu parce que am nañ si ay lu am solo luñ siy bëgg wax am solo danañ parce que ñu dañu am ay défi yu ñu am biir Médina défi bi njëkk mooy li tubaab di wax la bonne gouvernance c'est-à-dire naka la ñuy gérer ak suñu relation citoyen parce que seetlu ngeen dara képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Seydou Gueye képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Cheikh Ba képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Sidi Sam ñu ne woo daaw bu biir mairie bu ñu joxe secours doo ko fekkee loolu biir Médina yoree mairie bi ak foo mën di bokk boo duggee biir mais nañ lay tertoo nañ lay katagalee benn lay doon ak foo mën di jure loolu sama ñoñi mi nga xam ne mën nañu àndal war nañ ko xam li ñuy def mooy saa su ne waa Médina dinañu xam la ñu dépensé mairie ndax di ngeen am site internet boo xam ni boo leen si duggee di ngeen si jot wala ay ay benn journal boo xam ne dinañ ko édité en wut xarala bu bees boo xam ni képp kuy doomu Médina tous les trois mois di nga xam lan la nekk si mairie lañ fa dépensé xaalis bañ fa am loolu loolu c'est un engagement que ne woon naa leen aussi ne leen si secours ak si bourse yi loolu yëpp buñ koy def dañ koy dañ koy jox benn comité boo xam ne ñii yàlla na ne fal ñu koy distribuer de façon juste et équitable def naa loolu ay exemple la si programme bi nga xam ne de gouvernance boo xam ne dañ ko mën a dañ ko teg. formation emploi xale yi xale yi awma yi aw ma seen fay clair. N'oublie pas les habitants de la rue 19 hein, qui xam naa seen xër waaye yenn saa yi da ngeen parce que bu defee yéen ñi mag ñi dañuy daw te mag ñi war na leen bàyyi aussi ñuy seetaan mbir yi di fekk mbir yi waaye boo leen commencé xadar bi xaw a bëri tuuti day indi ay problème maa ngi leen di gërëm di leen sant gis naa ni ngeen ma jàppee yéen nag yéen leen beral loxo. parce que xam nga euh, ki fi nekk dafa naa moom laa doon wax sànq mi ngi xuus si loo xam ne xam ko gis nga boo demee si code des collectivités nga xam ni moo tënk commune li ñu wax si loi boobu mooy la commune elle doit agir pour les conditions de vie des populations loolu lu muy tekki mooy xëy na am na ay compétences ñu jox mairie waaye la mairie encore une fois doit être le relais des politiques publiques li may joxe exemple ci loolu mooy que ni boo jëlee structure boo xam ne comme 3FPT structure boo xam ni day tàggat xale yi di leen mais ni waxuñu mairie mu def affaire 3FPT mais li ñu wax mooy mu teg jumtukaay boo xam ni moo xam ab conseiller la moo xam ab guichet boo xam ni bu xale bi ñëwee dinañ ko wax fan la war a jaar loolu mooy rôle mairie mais comme ñoom jànguñu xamuñu lu ñuy wax dañuy tëral di dem rek xaste rek saaga rek sos rek loolu mooy seen métier éducation ñun on a pris l'engagement ñu nekk sama ginnaaw ñëpp de restaurer l'école médinoise parce que xam nañ ni les résultats ne sont pas bons war nañu am lu gën di fuuf di tàggat former école bi dinañ ko bu neexee yàlla grâce aux moyens de la mairie mais grâce aussi ah nos partenariats parce que ñun dañuy fàtte ni ñun dañuy yàgg ci ci administration am na loo xam ne mën nañ ko même bu dee à l'extérieur lañ koy wuti xam nañ ko mën nañ ko mën nañ defaraat école médinoise tabaxaat école yi ba def si leneen loo xam ne xale yi dinañu gën a jàng dina am ay résultats yu baax. ma joxe ma joxe beneen exemple damay joxe exemple mbir mi dafa bëri. les artisans encore. boo xoolee artisans yi mais artisans yi il faut ñu former rek il faut menuisier yi des centres loo xam ni ñoom ñëpp a koy bokk mu wàññi seen coono si usinage bi ñuy def loolu suñu mbébét la loo xam ne dañ ko def moo tax candidat bu leen tiim candidat bu leen tiim laaj leen ko. le 24 février janvier bu gagné lan lay def école Médine c'est une question candidat bu leen diir na leen wax lan lañ koy def lan la fay def ñun de on prend l'engagement ici que bu ñu falee maire Médina dès le lendemain le terrain de la Médina reviendra aux populations médinaises loolu lu leer ci bopp l'engagement ici du caagin nag dañuy léser le promoteur waaye am nañu xalaat parce que ñun tam yàgg nañu def ay montage financier ñoom xëy na seen xam-xam màccul dem waaye mën nañ def ay montage yoo xam ni duñu tooñ kenn waaye dinañu récupérer suñu terrain pour les populations médinoises am nañ sax yeneen xalaat si loolu parce que la mais war na am possibilité xale yi dem di nuyee Sacré Cœur xale yi dem di nuyee Quatre C mais mairie war na mën a jënd ay package ay heure yoo xam dafay may xale yi parce que affaire bi cher la donc pour compléter l'école de la Médina nous ferons deux choses terrain Gibraltar parce que xam nañu temps yi ñuy dox mais buñ ko jëlee dinañ ko defaraat. grâce à des appuis peut-être extérieurs mais dinañ ko defaraat ay convention avec Dakar Sacré-Cœur avec 4C et cetera pour que xale yi aussi dem di tàggatu foofu aux frais de la commune loolu yëpp nag bu mënee am loolu yëpp bu mënee am jàpp leen ni vous êtes jàpp leen ni un inspecteur. principal des impôts de classe exceptionnelle li may bëgg a wax li may bëgg a wax gis ngeen problème am Médina yëpp xam la indi c'est la gestion de l'assiette fiscale c'est-à-dire Médina am nañu fiy liggéey ñuy génne xaalis di fi am xalal alal xam nañu ne la ñu waroon fay fayuñu ko ñun nag on va parce que aussi am na suñu ay gars yu liggéey fii seen doole bëriwul loolu état bëgg leen teg dinañ ko négocier ba nga xam ni la Médina mën na am yenn avantage yu compte de sa position donc loolu loo xam na lu leer sama bopp la war naa ko mën a liggéey te incha allah naa ko liggéey may profité la si wax ni dama si profité di wax beneen mbir parce que xam nga gars gis naa parce que ñoom ñoo ma koy wax ah man maa ko wax. ñu si bëri dañuy ñëw si meeting yi ñëw si rencontre yi parce que dañ leen di obligé ñu fi ñëw ñii liggéey si maire bi ñoo tax may wax ñooñee may dalal seen xel ce sont nos frères et li ñu jàpp mooy bu ñu jëlee mairie bi du am chasse aux sorcières ñun dinañ leen jàppale te mieux parce que maa ngi dégg ñoom lu ñu xultu dañ leen gën a organiser ak ñi leen di fekk si parce que ñu aussi dinañ indi suñu administration ak ñu leen di fekk si leen ba ñu am ay coopérative ak yu demee noonu améliorer seen condition de vie li ma si teg rek si biir loolu si biir loolu li ma siy teg rek li ma siy teg mooy ah di am ñett ñeent wala juróom yoo xam ne nag nga xam ni saa su ne ñu ngi ñuy jàpp duñu saaga duñu wax lu ne ñooñu moom tëkku ma leen waaye dootu ma nekk si maire loolu moom nay leer may wax ni non man may wax si beneen mbir diaspora parce que yéen ñi fi nekk ku fi nekk am nga mbokk si diaspora demoon naa def benn tournée en Europe incha allah semaine bii bëgg nañ dem Amérique gisanteel diaspora parce que ñun ñii ñëpp bu nekk am na doom wala jarbaat wala sët bu nekk biir diaspora te ñooñee ñoo ñuy jàppale. donc dinañ dem leen te li ñu bëgg mooy li ñu bëgg mooy te yoon may nañu ko bis bu ñu amee conseil municipal ñu jël ñett si waa diaspora bi. ñu bokk ci conseil bi à titre consultatif loolu incha allahu dinañ ko def mais terminer nag foofu laa bëggoon terminer te foofu laa war a terminer di gërëm sargal Youssou Diallo moom la ak waa rue 19 bi ñu fekk fi mais gërëm waa rue 19 yëpp di leen baalu ak parce que def fi bruit yu bëri mais Youssou vraiment tu as montré que tu es un frère tu as montré que tu es un militant digne de la cause juste nga xam ni moo la ñuy xeex mooy le devenir de la Médina.